man damay sant yàlla ci am ay xarit yu baax muy ci biir réew ak ci bitim réew ba tax na am na xabaar yu baree baree bari yoo nga xam ni mën naa ci am xëy na ñeneen danañ ko am aussi waaye man sama bopp laa mën a xam xabaar yu bari yoo nga xam ni danaa ko am bala muy siiw diggante ajjuma ak samedi ba booru ñetti waxtu jëm ñeenti waxtu ci ngoon maa am ay xabaar yoo nga xam ni jëm si ci réew mi benn baaxu ci dara baaxul ci comme lan yan genre ay comme yi fi amoon rek yu ko yu yu ko gën a yu ko raw ci ci ci même cadre boobu. maanaam ñu dundoon le premier ak le deux lu gën a piir loolu. voilà bi ma amee information yooyu sénégalais laa ci réew mi laa bokk te am naa fi cër. ma ne amuma droit toog ma force buntu président pour seeti ko dama ne forcé parce que keroog ba mu ñëw xamuloo ni maa ngi toog di ko xaar. bi muy dugg si la ko nit wax nii diw mi ci biir ah bon naka la dugg ni ma boo ñëwal toogul sax ñu dugg ci biir ma wax ko yenn ci information yi ma amoon ba pare ni ko dama lay yëgal si mais tàgguwuma la parce que bu ma lay tàggu soo ma nee bul dem du ma dem mais dama lay yëgal ndax dama am responsabilité ci réew mi pour diir que yónniwu ma yebalu ma woowu ma ba mu fay dem te ay témoins xam nañ ne ba mu fay dem moom xamul ni maa ngi foofu di ko toog di ko xaar donc ma wax ak moom li ma war a wax ak moom génn woo suma xarit bu ñu wax Muntaxa Kan di taalibi sëñ Muntaxa di xaritam mu nekkit daanaka sama buntu foofu nag bu yenn yi amee mu xat lool lool lool ci moom wala ku mel ni moom laay jaare pour mën a gaaw a egg ci xalif bi ma woo ko waxtaan ak moom ñaar fukki minute lañ ci teg mu woowaat ma ni ma sëñ bi dina la recevoir suba une heure waaye boo demee jaaral ci sëñ dan mu sëñ Abdou Lahad mu bëgg wax lu leer ci laa jël sama téléphone woo Imam Dramé Imam Dramé comme ni nga wax choix de Imam Dramé justement moom laa la bëgg wax nii parce que laajaale nga ko léegi Imam Dramé Pastef la bokk man ma bokk benn bokk yaakaar waaye nag bokk réew mi yàlla def suma benn jarbaat bu dëkk fii ci Wakaam moo tax ma xamante ak imaam Dramé benn bis la ma woo di ma waa sama nijaay man de am na benn imaam bu bëggoon naa ngeen xamante ma ne ko ah, xamee du tuyu njariñu ci njariñu ci génn hmm. laaju ma ko sax pourquoi ñu joxante rendez-vous fii ci restaurant bii ci seen wet la régal foofu laa xamante ak imaam Dramé ma remarqué aussi ci moom ni ak lu mënti xew nitu jàmm la bu nekkee ci plateau dinaa ko kenn mënul bokk moom sax plateau far d'ailleurs damay toog ba ak man ko yow nekkatu imaam pekos nga wala jàngoo ndax vraiment ni muy def ci plateau mais boo toogee moom ni wax tout le temps nu ñuy def pour jàmm am nu ñuy def pour lii mën a avancer mooy waxtaanam ma woo ko téléphone wax ko ni ko dem naa seeti président damay dem seeti si Mountakha dama bëgg nag nga ñëw doon seede parce que man dumay dem di wax ak Ousmane Sonko naan ko def sëñ bi nee na li wula diw naan nang ma nang yow bi farag moom dama bëgg nga ñëw fekkee mu ni ma mënuma demit te waxtaanuma ak samay kilifa wax na ma it kilifa yi mu doon waxtaanal c'est pas la peine may egg ci seen tur ci plateau loolu muy samedi ci guddi dimanche matin ñu xëy 7 heures lañ fi déparé ndekki kër sëñ dan 13 heures comme ni ñu koy waxoon sëñ Mountakha recevoir bi ñu ñëwee aussi man maa jëkk jël kàddu wax ko lii ma leen wax leeralal ko ni ko man maa jël initiative bu lii ak lii ak parce que Sénégal dañu comme tous les pays d'ailleurs du Sénégal rek dañu gaaw a demaleek fekkle sëñ bi rafetlu ko wax ñu lam ñu ci war a wax comme non man waxu kilifa du ma ko nettali ndax junjuñu rek ñe xalaatuma ko taalibi la ñeent la ñu woon togg ak sëñ bi man la woon imam Dramé sëñ bi sëñ Moussa mu wax ñu lam ñuy wax ñaanal ñu sant ñu bu baax nag ni ma nag jàppal ne lii mu ndam nga ciy jëlee loolu seddal sama xol bi ma ñibbisee ba sama kër kenn ku nekk ci njabootam également woowaat ma téléphone am lu mu wax la xëy na munu ko a wax ci mbooloo. maanaam. waxtaan loo nga xam ni sama diggante ak sëñ bi la woon wax ma li ma ci xam ak lu mu jàpp ne noonu laa war a doxale le lendemain ou la nuit dama toog ba yàgg rek kenn woo ma ni ma ah félicitation man ko lu xew mu ma ah, yow de am nga dam ma ni ko wax lan lu xew gaawal mu ni ma président dugg na léegi ci néegu sëñ bi ma ne yëgu ma woon ni président ma ngay dem Touba. donc loolu laa ci. xam loolu laaj mën a wax c'est pas une médiation c'est rien du tout li mu doon mooy am na jëmmi jamono xëy na man jàpp naa ne lii ak lii war nañ ko mën a dox dox nañ ko mu jur li mu jur ma defee ni njariñu askan wi la man du lu ñuy bàkkoo du lu ñuy damoo te yàlla seere na ni bu doon sama jëmm rek du du du génn d'accord